tooñ dafa jegeñ bakkan mag mu ko gedd am na lu la ko jar wallahi mag mu ko gedd rek am na lu ko ko jaral yàllaa ko mooñaaleeg bakkan waaye boo ko deful rek mu naw la waaw fa nga jaar ba mu mooñaale kook sa bakkan nga tëkku boo ko defee rek mu naw la waaw waaw moo tax daan na wéet ak mag ñi di ko nëbb sax yonent bi di ko nëbb yonent bi di wéet ak mag ñiy tooñ yonent bi waaw laa takunu kalladina azaw Muusa daan na bañ ñu def ko wallahi mooy soow dëgg réer mooy soow dëgg réer ki nga joteelul mu xëy tappaat la provoqué la am na dëgg gu muy bañ waa penc mi xam ko waaw te balaa mën a nëbb nag nga tontu ba tontoo ngeen xeex dëgg ga daw dem yoonam ba moo tax dinaa ko di faral di waxtaan ak kilifa yi ndax tabarkalla jamono moom déggoog say kilifa rek ci am solo ñi ñi fi nekk tey di ay kilifa am gouvernement bi di ko dawee ci président ba ci ñi mu amal léeg-léeg lenn yóbbu la fa sax waaye ngay weranteeg ñoom wàllu daara ba fàtte ko lu am solo la lu am am solo la dinaa leen ko faral di wax waaw dinaa leen ko faral di wax ndax itam dañu wax ni loo may sa xarit dégg ko moo ko gën boo déggee sa xarit rek di xaritam waaw boo déggee sa xarit di xaritam waaw te li ñuy nekk nekk ci seen biir bureau yi léeg-léeg waxtaane daara rek moo leen di mën a fàttali mettiti jamono moo leen di mën a fàttaloo mettiti jamono waaw ki ma ci mujj waxal bërki démb moo di Cheikh Amidou Kane werante daara wu rëy Maktoum Prod.
ma ni ko dama mas dem tugal gis benn mbokk mu weex mu di ma laaj ndax nit nga walla sa yaram neexul ma ne ko lu tax mu ni ma dañu amoon réception ñu nekk ci réception bi bu julli jot mu dem di julli ci lu tax mu di ko def ma ni ko nag koo xam ni li nga gëm li lañu lay yedde ka la koy yedde du sa mbokk ma ni ko ba tax na na ngeen nu bàyyi xel nu bàyyi leen xel ndax dëgg gaa ngi ci sunu diggante ñi ci des ñëpp dañuy fen bëgg gi mi ngi ci suñu diggante léeg-léeg nga gis ku bind saagan saagan dañu dem nemmeeku ji sëriñ Abdoul Ahad ci turu suñu way jur suñu kilifa Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh ba nu ci jógee ñetti fan am ku bind saagan ni lu tax ñaari daara yi di booloo ah te moom du jullit di nu ca yedd dund ca bind ca ba sama doom bu nekk ci dugal téléphone ma ni ma jàng naa ko ma ni ko loo xam ni bañuñu kenn yonent bi la ñu bañ waaw amul benn benn fu njabootam nekkit bu ñu sañoon mu takk waaw waaye kenn defu leen dara loolu moo am
Maktoum Prod.
loolu moo am léeg nga daje ceeg nit waaye rek da nga koy faf yërëm da nga koy faf yërëm ndax ko amul kilifa jar na yërëm waaw waaw ku amul kilifa jar na yërëm waaw ku denc lu dul jeex ci banque tabax lu dul jeex dëkk jënd lu dul jeex di war di dawal xëy suba jël poson def ci sa taas naan dee ca yor yor ba war nga xam ne amuloo kilifa ah ba moo tax adduna neexul kilifa neex waaw boo amee kilifa loo am dem waaw boo amee kilifa loo am dem boo amul kilifa loo am xel ba moo tax waaye rek it li ciy dalal xel mooy man gi yàlla man boppam dafay dalal xel danaa ko di wax wamal wamal ardu wamal ardu illa mawdiun illa mawdiun wa mahatatun wamal ardu illa mawdiun wa mahatatun li muxtalifi l anbai gayra musharrada nit ñi bari nañu kenn amul lu leen dundale fen rek waaw nit ñi doyuñu ndax wër wërsëgu yàlla ëpp na leen ku ne xam na loolu waaye dafa fekk nag ah bu yàlla joxe lu nit dunde joxewul lu mu yàqe noonu rek la bu yàlla joxe lu nit dunde joxewul lu mu yàqe waaw kooku noonu rek la toll waaye ku yéeg ci avion ñu ni la réew sàngama ngi nga séen ko mu toll ni layu xam ni nit ñi doyuñu
Maktoum Prod.
waaw boo séenee réew bala nga koo séenati dox ñaari waxtu ña fa nekk juugu daa xam ne addina la ñu organisé wul waaye nit ñi doyuñu waaw bu fekkee wërsëg wu yàlla jox nit nag ñu ñu tabaxe ko lu ñu rayante naka lay sotte ah naka lay sotte naka lay sotte bés bu ne nangami na at mu jot nangami junni milliard nga defare ko ay gànnaay gànnaay yoo xam ne yaa ngi ñaan bañ koo xeexe waaye mënatuloo koo yëy mënatuloo koo yëy mi ngi mënatuloo koo yëy waaw te yaa ngi ñaan ba nga ko jëfandikoo ba faw te def nga ci nang mi junni milliard ci at mi ci loo xam ni mën na dundal ñi ci kaw suuf ñépp waaw lii lan la lan la wamal ardu illa mawdiun ومحطة لمختلف الأنباء غير مشردة غير جميعها جنود بعون الله فيها مجندة في منك كان كوني يلا نجي لا كولي اورديناتور بو تاخ سانو مين كوي تانقال moo tax ku foog ni daa rëcc da nga nax sa bopp kenn ku ne yàlla kole na la ordinateur bu tax sa noo bu ne tànqal na ko moo tax dara rëccul waaw wallaay dara rëccul dara rëccul te ku sopp ya nga war a sopp yépp te mu jar ko sa tawat jeex na ah ku sopp ya nga war a sopp sa tawat jeex na ndax doo ko tal أحب جمال الله في كل خلقه ولولا جمال الله ما التذى عاقله والله damay yëg ci benn xeer benn xeer ba fekk ñax gu rafet gu ne ca tonn te amul suuf tooy xëpp te ca kaw xeer wala tegu ma ni lii de tegtal la ci waaw xeer ni mu rattaxeeg ni mu wowe gàncax gu rafete nii nekk ci te gisuloo suuf su ko téye ku mu yeewul dara du la yee ah nabtan ala xajarin من قدرة خلقت يا قدرة خلقت نبتا على حجر آه. أحب جمال الله في كل خلقه ولولا جمال الله ما التذ عاقل وجوه حسان لا أحب فراقها وألفاظ در صيغ منها الشمائل وأصناف دل واحتمال ورقة وعقلية يرضى بها من يسائل فإن لم يكن يحيا بهذه قلوبكم فقلبي بها يحيا وإن قال قائل
Maktoum Prod.
moo tax xam-xam ñett la ñett la bi jiitu moo jiitu te mooy bii defar sa digganteeg yàlla jeex na mooy jiitu bu jiituwul dara du dox xam-xam ba ko ñaareel mooy bii defar sa digganteeg sa nawle bu ca toppul yépp yàqu ba ca des mooy bii defar safara ak ndox ak gàncax ñépp a ko bokk waaw jeex na xam-xam ñett la bii defar sa digganteeg yàlla bu ñëwul yépp yàqu bu paasee bii defar sa digganteeg sa nawle boo ko ca tegul yépp yàqu ba ca des mooy bii defar safara ak gàncax ak ndox ndox ak safara ak gàncax ñépp a ko bokk koo ko tere tooñ nga ko والله والله والله noonu la ah xam-xam ñett la bi defar sa digganteeg sa borom bu dikkul yépp yàqu bi defar sa digganteeg sa nawle bu ta teguwul yépp yàqu di defar safara defar ñax defar ndox ñépp a ko bokk koo ko tere tooñ nga ko kooku noonu rek la safara moo togg nga lekk moo taal nga gis guddi waaw waaw ñax ak la mu la jëriñ ak la mu jëriñ sa gàtt waaw ndox ak la mu la jëriñ ak la mu jëriñ ya ca des yi ñett la ñëpp ko bokk waaw ñëpp ko bokk ba tey rek ngëm du ak waay war waay la waaw wama wama wama aktharu nnaasi walaw xarasta bi muminin eh wallaay dëgg la wallaay dëgg la benn benn rek ndànk ndànk wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay ndax yonent bi dafa bëggoon rek bala génne àdduna yëpp sotti yëpp sotti te fekk yàlla ndànk ndànk waaw na def rek la ñu ko defloo bu dem jotee na dem la ca des na ko bàyyee ki sàmm lépp te donn lépp walillahi miraatu samawati wal ard yonent yi yàkkamti na yàlla yàkkamtiwul waaw ak it di ñaax ñi nga xam ni dañuy bokk ci mbooloo waaye bu ñu meree wax lañu ca def astafirullah alazim moom cettt ay waa jege dafa am ñu ko daan def yonent bi yamunnuuna alayka an aslamu yàlla di laaj moom lu mu def waaw waaw ki def ci mbooloo moom yàlla taxaw di ko bàkkoo na waxit li yàlla def ci moom ah moom kay nag bu bu way wi yam foofu dégg nga maa def lii ci mbooloo mi maa ko def maa def lii daaw man nelaw maa daan jëkk yeewu fii laa daan toog ñaar rek laa fi nekk da woon loolu lu ciy sa yoon yow koy def nga li la war waaye xamal ni am na it ku def la ko war wallaay te moo la jëkk a def nag
Maktoum Prod.
moo tax baatu cettt moo tax baatu baatu xalam xalam dem na bay neex buum nga dog ci jullit aji gëm ju tàmbale bàyyi la ko yàlla tudd xalam bu dem bay neex buum nga dog ci njaboot bu dem bay am kilifa bayyi la ko yàlla tudd waaw alam tara alam tara ila alladina baddalu nicmat allahi kufra mi ngi ko metti mi ngi ko metti bu sañoon mu àgg waaw mi ngi ko metti bu sañoon mu àgg waaw waataal la sëriñ Babacar waxoon Joseph Mbay ci Tiwaawan ni ko réew a ngi moo xam ni boroom xaftaan bu gàtt dana la romb di waaxu ak laafam bu tilim te ku ko seetaan mu torox ñu bari torox waaw mbokkum ñëpp lay doon mbokkum ñëpp réew mu ñëpp bokk mooy fii waaw borom xaftaan bu gàtt lay romb bu toroxee rek région yëpp torox ndax mu ñëpp a bokk moo tax taaru am am bu teguwul ci taaru ngëm yàlla du ko gis taaru am am bu teguwul ci taaru ngëm jaru ko waaw jaru ko waa من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام جركم
Maktoum Prod.
وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم فكأنهم خشب مسندة waaw boroom am am bu gëmul yàlla mook gattax gu fënax ñoo yem lu ko ëf mu dem waaw lu ko ëf mu dem waaw inna qaaruna kaana min qawmi muusa fa baga alayhim wa aataynaahu min alkunuuzi ma inna mafatixahu la tanu'u bilcusbati uli alquwa yàllaay nettali ñëwoon démb te seen am am àggoon ci caabi ya koy tëj mbooloo mënu koo yenu caabi yuy tëj am am ba caabi ya rek mbooloo mënu ko yenu ah waaye ne ba ñu ca raxul ngëm mujj na woyof waaw ba mel ni gattax gu fënax waaw aha waaye nag taxul nag mu gërëm mu gërëm ki ko gëm ñàkk taxul mu gërëm ko taxul mu gërëm ki ko gëm ñàkk aha waaw moom it nitam lay wut loolu tax yonent bi wax ni ñàkk goo tey moog weddi yàlla benn la yonent bi wax na ko waaw te Ali ibnu Abi Talib laaj nañ ko ci jamonoom ni mu daan def bu ñëpp lekkee lu neex mu lekk lu naqati bu ñëpp solee lu bees mu sol lu ñu gaar ñu laaj ko ndax danga ko def sunna sa gannaaw mu ni ñàkk bu taxawoon di jëmm ma rey ko tegtal la ci ni jóg dox ñaq ba am mbubb bu rafet sol ko jóg dox ñaq ba am loo jëndee suukar indil xale yi ñu def ci kafe ci gëm yàlla la bokk waaw aha ci gëm yàlla la bokk te la bokk saa de te it mbooloo ci wàllu ngëm du am te ñaan jiituwul moo lay wan ni mbooloo moo bokk fàttaliku la borom daj waaw wala nga caa jëm tilimal fàttaliku la borom daj ak la mu wax Maktoum Prod.
فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات بيت خل waaw am na mag mu ñaan lëf soog a xew moo tax am na loo xam ne boo ca bokkee rek ñu ngi xamee sa dëggu ni sa dënn ubbeekoo ay sab nu Mariam daan na ko wax ay nitam dafa laan dañu néewoon dañu néewoon te néew doole bu ñëwee fekk leen ñu toog ñoom rek wéet ak jàq jàq ndax ñi leen di tëkk mu ni bëgg leen bëgg leen ngir yàlla bokk xanaa ku bégul ngir kenn nga bég boog ngir yàlla parce que yàlla jar na jaamam bég ci moom waaw jar na ko de waaw mu mel na daal ku moom yaa xam na nga waajale yaa xam la nga waajal ku yiw yomb walbaladu tayibu yaxruju nabatuhu bi idni rabbi ku yiw yomb am na ku tax mu yomb la te yiw dana yomb ba ci kaddu aha yiw dana yomb ba ci toogin laqad usti wallahi bi azim yonent bi nanguwul nanguwul kenn teddadi ci kaddu waaye ki mu gën a bañ mu teddadi ci kaddu mooy jigéen bu sañoon bu jigéen waxee rekk muy wurusi wax daan na ko wax waaw dafa am benn njaboot bu ñu may soxna ca waxin wu jëkk wa rekk mu gàntal sëy ba waaw waxin wu jëkk wa rekk tax mu gàntal sëy ba ndax jigéen ju ñu yar dana feeñ ci waxin jigéen ju ñu yarul dana feeñ ci waxin waa te nag lu nar a ñaaw bu ko guddal waaw jigéen ji ñu le indil yendoogul te kaf la jigéen di tàmbalee mu ni mu ni la waaw yow wattuma fële baatu wattuma foofu rek mu ni yaa mat na wattu nag waaw waaw waaw wat na wattu nag fële yal na ma yàlla musal ci yow mu ni laqad usti wallahi bi azim ah parce que jigéen dafa am waxin surtout bu dee jigéen ju gëm yàlla dañ koy yar ci wax jigéen war na bu àddoo xol yépp féex waaw ndax mooy ndey te gannaaw yàlla ndey a sës waaw parce que bu àddoo rek xol yépp war na fiix waaye ki ñu indi bees yendoogul sax di muslu ci jëkkëram te kafkat la ci jublu ah waaye kaf rek xam naa xaw ma nu ko xale yi waxee na nga def ci sa sëy ba ñu ne ah sëy naa ko ba génn ci ah waaye def nga musiba it Maktoum Prod.
cettet ba nu ko ëpp naa def boo defee doon se ndax école la école du bu la neexee rek sànni mukk sëy école la yaa na nga def sa sëy ba mu ne sëy naa ko ba génn ci di def ko musiba it cettet loolu kenn di wasu ko gis wallay ndeysaan ba moo tax sax saxu baax yooyu nit dana ca dem ba it yàlla dootu ko tudde nit dafa koy tudde sama àndaale waaw daa ca dem ba mu wàll la wóoloom wàll la dëgëram ala inna awliya allahi laa xawfun alayhim wala hum yaxzanun waaw ni tey àgg ci ànd ak yàlla miin ànd ba ba dara dootu ko ragal loo tey dara du ko jàqlooti mu mel na ñu ko yàlla defal ci jamono doy nañu kilifa sëkk